Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, j'espère bien. Alors, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est important. Ce fait que vous avez setan, ou alors vous avez abonné go. Invitez-nous à vous abonner right now, c'est très simple, ni règle. Et merci. Alors, Modou Diagne Fada, dafa attaquer cortège ñom Cheikh Bara et ak ñom Mara Niass, ñom ku nek xam nañ ni euh la donc attaquer na seen cortège une attaque bu brusque bu metti boo xamante ni am na ay gaañu yu bari fële ci dar Muxti ay vers 2 heures du matin la tiire sen kaw ay bal pistolet réel and ak ay nervinure ay jass di dal sen kaw amna ben femme bunti kidnappé dor nañ ko dor yu metti mom aussi dina gëna wax de toute façon Cheikh Bara ndjay dina retracer waat tous les faits yorna aussi ay images yo xamanteni ni ci euh, moment bobu la bi bali di tak ak affaire yoy nonu yépp dina len ko wan apparemment wa keur Jomaay dañu ñëw manam ñom Cheikh Bara ak ñom Mara mbolo mu bari dal di len top té lolu mom mënu ko am biir daru musti li bokk na ci li ko métti comme ñoom instant bi seen xol dafa gaaw a tàng loolu moo tax mu jëf jëf ju ni mel. alors Cheikh Bara leeralal ñu ndax attaque bi dañ la ci ciblé ou bien. man sama oto laa jàpp ne man la doon bëgg a rey parce que bi oto journaliste yi romb na oto bi def sono bi romb yeneen oto yu ndaw yi romb bi samay oto yu tolloog mbedd mi la benn oto daw cent à l'heure ñëw taxaw ci digg tali bi ba nga xam ne man amatuma fu ma jaar. fi may freiné oto bi man dawaluma sama safoor fi muy laalee oto bi rek beneen oto bi foncé rek bëgg a yéeg ci sama bëgg a mbëkk sama oto sama safoor gis ko gaaw mbas yokk vitesse sam génn bi ñu xamee ne rëcc naa leen ci lañ soqi ay bali fetal may dégg ñëpp a ngi koy dégg nit ñaa ngi nii danañ ko wax ndax ña yoroon fetal gi sax ñu xam nañ leen ñu soqi ay bali fetal jël ay xeer di sànni ba toj sama vitre oto Euh, coordonnateur u Pastef Daaru Muxti muy euh, nan Mbaye sax naa Bey ak euh, Thierno Mbaye professeur Thierno mbay dañu fekk otoom dañ ko dàq ba jàpp ko moom itam toj otoom ba mokk rumbux toj vitre yi def ko lu nekk gaañ ko dinañ ñëw ci blessé yi ñu am ak yooyu yëpp mais dama leen di wax rek ni mu demee bi loolu amee ku ne xam na ne ñun pick-up lañ yoroon xale yu jigéen yii ñu ci bari ci pick bi lañ yéegoon ak xale yu góor ñu nekkoon ci pick bi dañ leen a dàq ji mbooloo mi dafa bari oto bi du mën a daw ñi dàq leen daanaka xaw leen a jot di dóori xeer ci kaw ñi nekkoon ci kaw pick bi ba li ci toj ay bopp ñenn ñi dañoo tiit ca péelu damm am nañ ñu ci am ay damm-damm yu bari ñenn ñi dañoo daanu cëppeelu wuñ mais dañoo daanu biñ daanoo am na ci ko am jafe-jafe ndigg ba ma nga ca hôpital ba ñu bàyyi ñi am damm-damm yi seeni rajo mi ngi nii loolu lépp dinañ ci ñëw pour wax leen rek jëf ji ni mu toll bi nga xamee ne am nañ ñu cëppeelu ba fii may wax ak yow nii am na ñaari xale yu jigéen yoo xam ne ci karawaan bi lañ bokkoon gisatuñ leen te am mënatuñ leen a woo ba jot leen Mamadou Diagne Fada bu fekkente ne yow yaa jëf-jëf ji na la wóor ne bàyyi naa la man

di leen terroriser bundu kër Faara Diagne leen départ te ñun yàgg fay tubaab ko Cheikh Bara woon sécurité xëy na dal te ay doon tiire ay bar rayal lañ doon tiire yàgg xam ay xeer dajale seen i ni kenn xamul yenn genre nit la fi caravane bi di neexee mbooloo mi bari ñu mer seen xol yi jeex xamuñu ñuy def ñu dem jëli seeni bandi yoo xam ne maari day taale lii ñaaw na trop. daa tëb daa rajo ko nii nga xam ne def nañ ko bakkan lañ doon laaj. ndax dañoo fo seen auto wuti auto Cheikh Bara ndjay honorable député Daba wañan ak professeur mam Thierno mbay tay yalla mo len sutural way dafa am luñu bëggon ci ñoom ma japp ne nak daru musli jomb nako ndax jappon na ne politique bobu xewi na fi politique bi nga xamne mo fi wara xew moy gone yi ñoo dem a dem ba bëggal changement seen bop li nga xamne nak mo neexut politicien bi nek ci réew mi dafa yaroon ay ganar ba mujj ganar di sopp ay gayne diko nañ kep ñoo ko mën fajal seen bop parce que mu jaañ fa de ne na ne ne bokkaan na nak li mu def fu goor jigen la jël ay yi ñuy attaquer cortège su jàmbur di len tirer ay balle di sànni ay xeer nerf bi la ñu ne lu tew ñu koy nataalu damaa fekkee gis ci auto presse la nekkon yorel nit micro ay bar real lañu tirer ay nerf bi ñun liñ nepp c'est la presse motax ñu bayyi suñu oto bi ñu yéegoon ne. toj nañ ko sax demal xool koy ba fa ñaawlu di yem. lii ñaaw na dara mu si gis la bi capitale du mouridisme. ñun bi ñu jóge jàmm lañ doon dox. Mhm. ndax ñun mbooloo lañ mbooloo moo ñu topp ñuy dox jàmm. Mhm. kenn sànniwul xeer. kenn deful lenn bu ñu demee ba jub kër Diagne Fada ci la ci la kii nervi yi génn di ñu tiire ay bal def ñu embuscade di sànni ay xeer ñu koy ñaawlu ba fa ñaawlu di yem dëkk Daaru Musi dëkk maam Thierno mu dëkk fi ñu xajal ko maamam dëkk fi ñëpp dëkk fi war naa am na loo xam si ba ko doon def war na ko rusa def daaru ay xeer ak i fital moom Diagne Fada boobu am euh, oto yi nga xamante ne aussi ci cortège bi la àndoon bal moom moo ci daal di tuur ak xeer wala xeer wi nii léegi bu doon waa Pastef ñoo dañoo violence mhm. ñun luñ def ni politique suñu karawaan ñëw campagne la mo jant fa de yow nga xamni yow da nga perdal yow wa daru Musi dañ laa ba ba nga xamni dañ la ba Cheikh baara Ndiaye ak sëñ Mara ñew fi mbolo mi genn wa daru Musi yëpp ngeen di def jëf yu ñaaw yi ndax soxor di ngeen a soxor mais réew mi mënoo leen fexe ba duñ ko jël xoolal lii di dóor ay baru fital ah di ay xeer di bettaate mais nag jot ñi ñi ñi nga xam ne ñëw jot ngeen a ay xeer di ay pare oto ah, di di dóor ay balu fital di di di def yoo xam ni mais nag li leen di dóor mu ngi ñëw. oh Diagne mais Diagne mer na ñooñu sabootee yaa dañoo mer. sama ne jàng daal ne mi ngi tuuri ay bali fital di sànni xeer jàng fara jàng jàng fara mi ngi dóor ay bali fital di sànni xeer gis ngeen atom bi lay bëgg a tiir nit ñi ngi nii Cheikh Bara yow daaru muxti feesal ko dellu xoolal xoolal jigéen ñi ñuy gis nga leen gis nga jigéen ñi ñuy allahu akbar xoolal lii xoolal lii xoolal lii lu ko fi jàng ci àddina lan moo jar lii bi ma jéemee ci koñu pharmacie bi ma laajte ay xale yu góor laa fekk ñu taxaw ma ne leen xam ngeen ku ñuy wax Pape Samba Sall ñu ne ma waa kër gi dama dox deux mètres jékki-jékki benn xale bu góor ñëw rek dóoree ma ginnaaw keneen ñëw xëcc sama brassard yi ma takkoon ñuy jàpp ma dina dóor mbooloo mu bëri ñëw mbooloo mu takku ñu jàpp ma kii di dóor fii kii di dóor fii ci noonu moom Diagne Fada ci la ñëw. ànd ak ay garde corps am bi mu ñëwee. daal di ma laaj na ma yow xam nga li nga def déli la nga takk brasa mm-hmm. ah yor sa écharpe dugg koñ bi te xanaa xamoo ni fii sama secteur la mm-hmm. man ko ko ko waa xam nga bu la bàyyee ñii dinañ la rey ma ko waa parce que commencé nañ ma dóor te man xew noonu mu wane ginnaaw xale yi na waat ñooy du ma dóor bi mu may dóor muy wane ginnaaw man ko yow jaay pare xam naa la bu baax te yow xam nga ne xam naa la parce xam nga kan soxna Sall ci la tourné bi mu tourné euh, garde corps am jël seen affaire yooyu ñuy maasaatee di dàq ful bi après moom ci la ñu doon jël seen oto oto bi ñoom ci caravane mu ne nañ ko jël dugal na ci yóbbu ma man bi mu ne man ma yóbbu mais mu muy wax ak xale góor ne koy yóbbu. boo leen demee ba ci yoon bi da ngeen di gaare oto bi jël beneen oto bu amul taf bi comme ça ngeen mun ko ci yóbbu pour ngeen bañ a am benn problème ci yoon bi léegi bu ma waxee loolu ma ne am na ba pare parce que def ngeen ma li ngeen may def dóor ngeen ma gaañ ngeen ma lu métti lu ne bu ne def ngeen ma ko mu ne ma soxna si ma faa ah, mu ne ma yow yaa na koon parce que yow yaa ñëw suñu koon naan da seet nit takk say barasa man ko kon aw ma droit man damay laaj rek ba xam aw ma tuuraay ñëw seet bi te ki seet yow xam nga ko waaw nii la affaire bi demee daal di kooree bi jël ma indi ma ba suñu côté bu ñu ba ne fan mooy seen caravane ma ne ko bu ñu nii ñoom seen mbaxane yi soloon parce que bëgguñu sol seen mbaxane yi di dugg ci ko solal sa mbaxane sol seen t-shirt ngeen dugg ñun yemuñoo ak ba yëkkati loxo di bu doon ñu ji ci ngeen fa taj